نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي aousu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bi ñu sante yàlla nee na des di ko sant di julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi ziyaara ziyaara bu tedd ne borom màggal gi muy Seexil Xaddim ne di ñaanal Seex Muntaxa mu yàgg fi te ànd ak te yeggale liggéey bii ne tegu ci loxoom nee na ci barke maamam Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul nee di nuyu nag ne sama wóllëre wu mag wii nee na di sak nee na ci yoonu lislaam ne baax lool ne tedd lool ne suñu gisee bariwul waaye su événement amee saa su ne lu mu xat-xat ne Cheikh Mouhamadul Basir danañu ci xajal tuuti nee na ñu nuyu ko nee du guddal kaddu yi léegi takku san jot te bëri nañu koy xaar di sant di nuyuwaale sunu bunt ci maam muy sëriñ Ahmed Saloum saa sune ne maa ngi koy yóbbante nuyoo nee na bu jëm ci sëriñ bi saa sune ne nee na sëriñ bi yóbbante nuyoo yu jëm si ci seex bi nee na loolu laa ko bëggoon a seddal tey nag dama ñëwoon jébbal tamit vingt-huit mille masques yi nee na jox ko xalif bi ngir fi jàngoro bi toll ci réew mi daanaka sax wan nañu ginnaaw ndax ñaanu Cheikh Mouhamadul toq ne daa dégg nga wax ni ki ñu gën a xam sunu bopp gën noo jege yàlla nee na su mbir yu mel ni taxawee ne déglu ko mu gën nee di indi sunu xalaat ci mbir yi ne tënkunu dégg nañ la bu baax wax bi kawe na nit ñi dégg nañu ko yaakaar sax da cay juddoo ba fan yi gis nañu ni mbas mi dellu na gannaaw bu baax waaye loolu du bett kenn ku xam diggante Seexil Xadiim ak Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafay wax benn borom xam-xam. waa Belgique la nee na physicien la mu koy wax ni nee na histoire bi buñ ko xoolee nee na ñi demoon Lambaréné nee na ñépp danoo mujjoon a faatu nee na Cheikh Ahmadou Bamba bu Sénégal moom rek a dellu si mu ni damaa jaaxal mi nee na mu ni ko lu tax loolu am ka mu àndaloon la ña mu àndaloon la ca tukki ba koo xamante ni li ta tubaab bëggoon mooy mugzegze ne su mattoon sunu deri ñun nee na interne lay def ne dee moo ca topp waaye musta mat Seexul Xadiim li ko waral mooy leer gi tege woon ci kaw yaramu Seexul Xadiim yoo bi soriwu ko woon daan na ñëw di barkeelu ci leer gi daan bayi ko ci deru Seexil Xadiim ne yemul foofu ne jasit bi li muy man-man ndox di man suuf nee na ci Seexul Xadiim daan dem ci booru ndox mi ne jasit bi day dandu di yëngal géenam di barkeelu ci leeru ci bàyyi ko ci Seexil Xadiim ne lii moo indi nee na lii moo indi yoo boobu nga xam ni moo am ci digganteem ak rasulullah moo indi ku nekk ci réew mi ñëw fii dalay lay gënal dem feneen ne sant nañu la sëriñ bi mu ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg fi ànd ak wér mission bi gis na lool waaye sa moom moo la ko nar a teel sant naa la maa ngi feddali sama kóllëre ak yow xam naa ni sa ñaan nee jógewul ci man nee na jógewul ci ay mbokkam moo tax ma sant la di delluwaat ne lii micro la maa ngi santaat encore le président de la république nee ci hôpital bu bees bi nee na bi mu ubbi samedi jamono jii ñu ne ku ku bëgg réew mi jëm ca kanam da àndandoo lii nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadul Muntaqa wax ni yaru leen dal leen wóolu leen yàlla wóolu leen ñaanu mag ñi rawatina Cheikhul Khadim li mu ñaan ci réew mi yàgg-yàgg sëriñ bi naataange bu mat sëkk dana fii de soo déggee isa katabtu aha ne ne ne bayit boobu nga xam ni Serigne Touba wax na ko jëme ko ci xasida yi ne ne saa suñu koy jàng moom xasida yi day yëngatu ne bindam moom day neexal xol ne daf koy seddal waaye dafa am leneen lu muy jur lii di pétrole ak gaz ne faw mu ball fii ci réew mi ndax jokkoo gini jokko xasida Seexul Xadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf Sëriñ Tuuba li nga xam ne moo nekk ci seen kanam te ngeen ànd ak moom ngeen ànd ak moom ñëw fi di ko sant bu baax a baax sëñ Bassirou nee na ngi lay sant bu baax di la gërëm di la gërëm ci sa dikk yi nga fi dikkee ci dikk yi nga dikk fii fi moom ñëw siyaare si ci màggal gi. ñëw siyaare si ci màggal gi. te daa ko def at mu jot. te daa ko def at mu sa cofeel ci dëkk bi. nee na sa cofeel ci dëkk bi. ak sa cofeel ci Serigne Touba. ak sa bëgg Serigne Touba. moom moom mii Ahmed Saloum. seeral na la ko ay foo nekkut. foo nekkut. kon loolu moom dëgg la. nee na loolu nag moom dëgg la. ñun képp ku na moom ku bëgg Serigne Touba. ma bëgg léegi sama biir xol. nee na dana bëgg ci biir ñu lay gërëm bu baax. nee cofeel gi nga am ci sama jëmm itam. nee na cofeel gi nga am ci jëmmam ji. ak jàpp gi. ak jàpp gi ak kóllare gi. ak cofeel gi. lépp xam naa ko. lépp xam na ko. waaye nag ñu ngi lay bàyyee yàlla. nee mi lay bàyyee yàlla. suñu borom mi nga xam ne suñu borom mi nga xam ni. moo dogal loolu suñu diggante. moo dogal loolu seen diggante. ñu ñu fas fas yéene feddali kóllëre gi. nee na mi ngi fas yéene feddali kóllëre gi bu baax. parce que yéene dox bu baax. nee na dina ko dox bu baax. ci yéene ji nga xam ne am ngoo ma. ci yéene ji nga xam ne am ngoo jëmoo. dina ànd ko yow bu baax. nee na dina ko ànd ak yow bu baax. ñu ngi lay sant bu baax a baax daal. nee na mi ngi lay sant bu baax a baax. di la gërëm ci coono yi. nee na. di la gërëm ci coono yi. di la gërëm ci coono yi. ak yàgg jotaay bu yàgg. ak yàgg eh, jotaay bu yàgg dafa fekk ñu newoon ci xat-xatu màggal gi. nee na daa fekk mu nekk ci ay xat-xat ci mbooloo yi rek. ñu nekkoon ci xat-xat ci màggal gi. nee na daa fekk mu nekk ci xat-xat ci màggal gi. ci yoo xam ne mënutoon a weesu tey. nee na yoo xam ne la mënu woon a weesu tey. loolu moo taxoon ma xaw a. nee na moo tax nga xaw fee yàgg. waaye ñu ngi lay jégalu bu baax ci loolu. nee na mi ngi lay jégalu bu baax. waaye lépp aw yiw la rek. nee na lépp aw yiw la rek. waaw kon nag ñu ngi sant bu baax. jërëjëf Mbacke Balla nee na sant na bu baax a baax a baax. daa sonn kat. nee na mi ngi ñaan nga yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk nee na yàlla yàlla dëgëral ko te sàmm ko bu baax nee na ni fa doxee ci moom nee na mu doxale la النجاة أنت الكريم